ndoxum siti di wax ne nag gaam bu baax la yéen ñi nga xam ne da ngeen a am ndoxum siti mën ngeen ko daw jënd ko cherul 10 000 rek lay jar ñu jaay la gaam bi nga daal di traité li nga xam ne nag moom mooy sa ndoxum siti waaye yemuñu foofu dañu indil nag ay savon yu baax savon Fabio bi gis nga actuellement nag bi mooy toj dëkk bi savon bi nga xam ne macha allah en même temps gomage la euh, bi dañ ko def pour homme ndax nee nañ leen fu ñu leen indilee jigéen ñi rek indi nañ leen fa góor ñi euh, bi savon pour homme la donc koy sa teint bi di di nes nesi même góor sa yaram bi dafa war a set dafa war a leer euh, même su dee teint noir la dafa war a set su dee ku xees nga tamit dafa war a set voilà bii lañ indil nag euh, góor ñi yéen ñi nga xam ne nag euh, bu ngeen toppatoo seen yaram savon yaa ngi noonu suñ fa jógee Kéba indil nañu Fabio bi gommage bi gis nga nag yéen ñi nga xam ne da ngeen di diwoo xees xeesal pour mu réparer sa peau la pour mu defaraat sa yaram bu baax a baax a baax a baax gome sa yaram ba mu set daal di nag euh, defar yaram bi mu nes ne si gommage bii la mooy Fabio bi gommage bu baax la yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a gome woote leen nag euh, ñi nga xam ne nag euh, ñoom ñooy waa rax ma ñu jaay la gommage yu baax yi mu ngi noonu savon yu baax la savon yu baax a baax a baax euh, suñ fa jógee tamit am na ay euh, produits yi nga xam ne nag euh, c'est des capsules mu ngi nii waa ma ñoom ñoo ko traité indi ñu ko produit bu baax la pour yéen yi nga xam ne nag da ngeen a bëgg a yokk yaa xam muy fes yaa xam muy sein lépp lu ngeen a bëgg a yokk rek mu ngi nii indil nañ leen ko yu baax la mu ngi nii am na ay collage collagène am na lépp bii nag mooy jongama mineur bi